Afia FM. Sikine waxtaane li ñu police di def xool naka la ñuy waxtaane police ak autorité sénégalaise yi repression bi ak mbugal bi ñu nekkee population sénégalaise mu dak ba kenn yiy rot biir Sénégal ndax violence policière defe naa ni doy na damay rappeler ni constitution moo leen permettre bu ñu àndul ci dara en tant que citoyen sénégalais ñu jug xeex si jug xeex boobu lañu jàppee ay activistes toroxal leen humilier leen dóor leen donc dóor yooyu tey toroxal boobu tey ak menace de mort yi yi am ci biir oto yooyu ñu leen jàppoon moo waral ñu woote tey ne dafa war a dakk ndaxte lu bëri jaar na fi muy ay métit yu peuple sénégalais di dund ak cause de notre police 14 morts am nañ en mars dernier kon bu ñu menacé activiste ne leen bu ngeen jugatee manifester dinañ leen mbugal dinañ leen dóor dinañ leen toroxal dinañ leen sànni dinañ leen rey jot na sëkk ñu jug woote wax woote wàllu population Sénégal woote wàllu membre force vive yëpp yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi ñu jóg artu bala ñoo àtte ndax defe naa ne suffisamment de vies sont tombées à cause des des des balles de la police. envers les activistes eux-mêmes. Sylvestine Mendy, ici présente, nous a affirmé devant témoins qu'elle a été victime de menaces de mort. dinañ la rey beneen yoon buñ la gisatee. des forces de l'ordre encagoulées qui les ont jetées en pleine nuit et en pleine brousse. ñun dañoo nekk ay républicains c'est vrai que activiste moom dañuy dépendre souvent comme ñoo xam ne dañoo violant waaye ñun duñu ñu violent nous sommes républicain te gëm nañ ni ñi nga xam ne ñooy autorités yi di resteront républicains jox ñu li nga xam ni yoon constitution moo ñu ko may ñu dem toog waxtaan wooteew ñu violance wooteew ñu marché wooteew ñu lenn lu dul toog waxtaan